ñiy wane ndóol gu doy waa ci seen xar kanam li ñuy gis ci wakkaam Wakaam rafetul dara ay soxna yu muuru yore ay doom ñooy nekk ci mbedd mi di yalwaan soo leen xoolee rek xam ne fekk ñu baax fi ci réewu Sénégal su guddi gi jotee ñu bëri ci ñoom fii la ñuy tase ci tund bi tiim quai de bu Wakaam fii la ñuy fanaan li ngeen gis ni bokk ci bërëb yi ay njaboot di nekk mu di lu doy waar lu daw yaram métti lool ñi nga xam ne dañuy ñëw fii ci plage bu Wakaam. déjà da nga leen di yërëm ba yaa ma gën a xam guddi gi fii la ñuy nekk ak seen i doom ay booy yu am un an ñenn dañ leen di bootax yu kenn xamul benn nit yor kat xale di dox ak moom amul fu mu fanaan. fii ci quai de bi kenn xamul ñi fa la ñu jógee ñu bëri sax li ñuy laaj mooy naka la ñu def rek ba jaar ci frontière yi ak ay tout tànk Ah, après nii da nga da nga naan mais ñii fan lañ jógee ban dëkk lañ jóge ak nan lañ def ba dugg ci dëkk bi. frontière bi amul sécurité nu la neex ngay duggee. on dirait que ñu ne waa Niger yi la ah, ñoo fi ëpp bon ñun métitlu nañ ko euh, en tant que jullit bon surtout xale yi. ñi jiite quai de pêche bi ñoom dañoo dem ba yëfi da leen a yéem def nañu ay jéego waxtaan ak kilifa yi ngir ñu jóg si ak i pexe waaye boobu ba léegi yëf yi mënut a sotti. dem nañ gendarmerie nag def nañ fa déclaration commandant bi promettre na wàcc fi at ñëw fi ñu wàcc fi ñëw fi def fi des am mais malheureusement jusqu'à présent gisaguñu dara mais mënuñu si dara mënuñu defal justice suñu bopp. ay xale yu ñuy forcé ñuy yalwaan te ñi koy def du ñenn ñu dul seeni waajur wala ñu leen indi si réew mi te juruñu leen atum 2022 bu yàggul dara lu tollook junni doomu Niger. yi doon yalwaan si mbeddi ndakaaru delloo woon nañ leen si seen réew gannaaw bi ñaari réew yi lëkkaloowee def lu ni mel tey ji nag yalwaankat yi bëri ñuy gis si mbedd mi te ñu si bëri ne kii gan day firndeel ni am na ñu demoon ñëwaat te du ñàkk sax am na ñeneen ñu bees ñi dog a teer fii si ndakaaru